dellusiwaat nañu ci tafsir bi ñu baaxoo def ci waxtu yi e, ci Hann TV ñu ngi koy defee fii ci grande mosquée de bu Hann Capa seen mbokk seen xarit seen taalibe Oumar Diallo moo leen koy defal e, su ko defee ñu ngi woon ci suuratul baqar ci aaya bi yàlla di wax ci alquran mu ne attalaaqu marrataani fa imsaakun bi maaruufin aw tasrixun bi ihsaanin hmm. yàlla nee na attalaaqu marrataani pas pase ñaari yoon la soo xasee ba fase jigéen ñaari yoon kon noy def fa imsakun bi marufin so ko dello fa imsakun bi marufin aw tasrihun bi ihsanin nga teeyi ko teeyi bu xam ne bu jekk aw tasrihun bi ihsanin wala nga boyal ko bàyyi ko ni mu gën a rafete wala yaxillu du dagan lakum ñeel leen yéen jëkkër yi an taaxusu ngeen jàpp mimma aataytumuhunna li ngeen joxoon minal muxoori ci can sey an ci dara fase jigéen ba pare leen ko canoon nga téye ko lislaam nanguwul lool illaa ndëre nag an yaxaafa ñu ragal ñoom ñaar ñaari way dencante yi an laa yuqima ba du taxawal xududullahi atteg yàlla yi minal xuquqi ci àq yi kon boobu boobaa ah mun nañu tàggoo rek benn yoon yàlla neen fa in su ngeen ragalee nag an laa yuqima du ngeen taxawal du ngeen saxal xududullahi atteb yàlla yi fala junaaha déet bakkaar alihima ci ñoom ñaar ñépp fii maftadat ci loo xam ne ndaw si dafay daf koy dafay jotu bihi ci li mu joxe waaw aaya bii wa sababu nuzuliha aaya bii li tax mu wàcc anna imraat ismuha أن امرأة اسمها جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن صلول كانت تغيب تبغض زوجها آه. كي دوم عبد الله ابن سلوم رئيس المنافقين نكون كو خامني دفا ميرون جكرم جكر جي نك مونغي تودون ثابت ابن زيد فسكت للنبي صلى الله عليه وسلم ندوسي نيو نك ديكو تاوات يونت بي عليه الصلاه والسلام حيث قالت يا رسول الله اني اني اعجب لا اعجبه في الدين ولا في في الخلق غير اني وجدته مقبلا في جماعتي فرايته اشد سوادا وقصرا واقبهم وجها لا يجمع راسي وراسه شيء وإني la akrahu al kufra fi fil islam dégg mu ne man daal ndaw si waa ji du ma ko ayibaal ci diine maanaam xeebu ma ko ci diine xeebu ma ko ci jikko waaye lu dul nag fekk naa koo xam ne mu muqbalan xaw ma nu ñu koy waxee ci ci ci ci wolof muqbalan fil jamaati mooy ku am jàkkaarloo ci mboolo fa raaytuhu gis naa ko ashaddu ashadduhum sawaaban sawaadan gis naa moo gën a ndax waa ji moo gën ñuul ci góor ñépp wa xasran moo gën a gàtt ci góor ñëpp wa aqbahum moo gën moo leen gën a bon moo leen gën a ñaaw wajhan xar kanam man xar kanam gi kanam gi dafa ñaaw laaj laa yujmau raasi wa raasuhu sama sama sama bopp ak boppam du ñu daje <laughs> wa indi man la akrahu sibna alkufra weddi fi islaam ci lislaam dégg nga falamma nas falamma at hasil ayat bi nag bi mu wàccee fa amaraha yonent bi sallallahu alayhi digal ko bil fidaa si mu jotu kon ku ma bugg bëggatul waa ji ndax ay jikko ak ñaawaayam ak gàttaayam ak ñuulaayam moo ko bëggatul te waa ji canoon na ko benn tool kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ngay jotu loolu la olof yi di wax ku jëkk jukki xaw ma bàcca eh, comme que yow yaa bëggatul te moom munal na la mun na la dundal munal waaye yaa bëggatul ndax ñaawaayam wàll yu mel noonu kon nag da koy delloo li mu la canoon ah, kon noonu la mbir moom amee kon yàlla nee na fa in xiftu ba an laa yuqimu xududallahi fala junah alayhima det bakar alayhima di len war fi maftadat ci luñu jotu bihi ci alal waaw mu jox ko waaji mu jotu ci mu jot boppam tilka yooy ay ay al ahkam mooy atte al mazkurati yu ñu tudd xududullahi mooy atteeb yàlla fala taataduha bu leen ko jalgati wa man yataadda képp koo xam ne jalgati nga xududullahi hududallahi atteb yàlla fa ulaika ñooñu jalgati atte yàlla humul zaalimuuna ñoom ñoo ñoom ñooy woy tooñ fa in dallaqaha su fekkee ne nag fase nga ndaw si fala taxillu lahu du dagan lahu ñeel ko min baadu ji eh, ginnaaw passé bi nga eh, yaani baada talaqa talaqatul saalisatu ginnaaw fase nga ko ñetti passé jigéen soo ko fasee ñett fase fala tahillahu min baadu xata tankiha zawjan xayrahu soo ko fasee ñett dootu leen mën a ànd lu dul mu dem sëyi feneen keneen labat ko tàkk ko ci tàkk bu sell ñu ànd ñu ànd mooy ñu am rapport bu boobaa nag su ko fasee su ko fase ba iddam jeex ki ko fase woon ñett mun na ci delluwaat waaye waxuñu takk rek fase te ànduñu waxuñu loolu de walla fase bi walla takk gi du takk gu tegu ci sariya kon boobu du tax mu dellu ci góor waa waa ji am na ñoo xam ne nag dañuy joteek seen borom kër mu fase leen benn fase leen ñaar fase leen ñett te bëggante nañu waaye am na ñoo xam ne dañu tàng jigéen ñoo xam ne dañu tàng walla góor ñoo xam ne dañu tàng walla ñaar ñu tàng daje su ko defee fase yi bare su ko defee nag da ngeen di tàggoote kenn ku nekk doyalul ci sa morom ah te charit nanguwul ngeen di àndaat ndagam fase nañ leen euh, fase jaar na seen diggante fase boo xam ne ñett la kon su ko defee ndaw si dana fexe boo gis benn góor goo xam ne euh, dafay mel ne Abdoul Amoun Mokhtar léegi su ko defee mu ne ko dama bëggoon nga takk ma àttan na sax jël alalam jox ko mu takk ko ba ñépp dégg ne takk ko ci takk na ko ci jàkk ji te duñu ànd balaa mu yàgg voilà une semaine wala kii nga nga gis mu mu mu fase loolu yëpp pour mu mën a delluwaat ci ki ko fase woon ñett yooyu loolu la ñuy baara yëgu wala mu ne ndaw waa ji tàkk ma rek tàkk ma su ñu amee semaine ah nga fase ma ma mën a delluwaat ci sama jëkkër loolu lu koy euh, lu koy waral mooy ñàkk ñàkk doylu ci waa ji waa ji ñàkk doylu ci moom te loolu daganul su ko lislaam yége yége da koy dindi koy firi du baax te itam su fekkee ne loolu nga def ba mën a delluwaat ci waa ji soo fa delluwaat da delluwaatee su ko lislaam yége itam da koy dindi du dagan loolu la ñuy wax baare yégo fas na fasee nañ la ñett mënatoo ànd ak moom faw nga seet kalangaatu ba am beneen jëkkër yoo xam ne buggoo ko sax noboo ko ah nga mën a delluwaat ki waaye nag attention attention risque a ngi ci fase nga sa soxna ñetti passé bëggante ngeen mu gis beneen góor mu tàkk ko ah mu tàkk ko fekk moo la gën a jantal moo la ëpp dépense moo la ëpp yërmande su su moytuwulee kee day ñàkk de ki la fase won ñe wóorul wóorul daal baada zaw ji daal ah ala ah, mun na indi mun ah, baax na moo tax fase hmm, hmm? hmm. Mm-hmm. waaw su koy lislaam yégee di koy dindi parce que dafay xam ne loolu loo loolu mooy baar yégul koo comploté waa ji xamul li xew waa yow xam nga la loolu moo nga dem wala am na koo ko ko koo ko dee mo rek damay dem fa du ma fa yàgg dama fa dem rek pour hmm? su kooku su demee wax ko xaati dañuy tas sëy bi te te du tax nga delluwaat ci waa ki la ki ñett dagul dagul dagul dégg nga hmm. euh, faw mu am benn jëkkër jëkkër ji ànd ak moom ñu takk ko ci takk bu sell soo ko fase iddam ki nga xam ne dafay gis deret kiy gis deret soo ko fasee dafay iddewu ñetti weex weex weex weex yi mooy dafay gis mbaax ba set ci mu toogaat ba gisaat set ci toogaat ci ba gisaat set ci na fekk nag fi nga ko bi nga ko fase danga bàyyi ba mu indisposé ba set ah ba sangu ba set nga fase ko fekk àndule loolu mooy paseb sunna dégg nga léegi-léegi dañuy wax paseb sunna te xamuñ lan mooy paseb sunna jigéen ñi waaw moom kay def ko fase waaye paseb sunna la dafa am li ñuy wax pase paseb yar ak paseb sunna parce que yar moom ndaw si moo la sonal ah, ngeen xuloo xuloo guddi xuloo bëccëg nga fase ko dafa yaakaaroon munoo ko baax sa mbëggeel ak moom mënoo ko baax walla moom da dafa toll ci yow foo xam ne mënoo ko mënoo wax mu dëgg après nga fase ko xam lu tax su delluwaatee seen kër su demee seen kër ba nekk foofu ay fan ba xat foofu su ñëwaatee dina toog ndax jigéen ju mosu sëy néegam rek la xaj ci néegam rek la xaj su delluwaatee kër gi dafay xat su ñëwaatee nag dana muñ dana régler loolu moo tax nga fase ko pour yar pasum yar paseb yar paseb yar bu dee paseb sunna nag danga koy fase foo xam ne fi muy mën a commencé jàpp idd parce que soo ko fase foofu yaa ayyuhan nabi iza talaqtumu nisa fa talliquhunna li iddatihinna iddat yaa ayyuhan nabi yee yonent bi sallallahu alayhi wa mooy yoo yow ak say xeet iza mu nisaa su ngeen fase jigéen yi fa talliquhunna na na ngeen leen fase li iddatihinna fi ñu mën a commencé jàpp idd mu ne ko fan ma ne foo foo xam ne gis nañu mbaax ba set te set googu àndoog moom nga fase ko su demee nag waa asul iddat ngeen nag takk ëdd bi

nga toog ba nga xam ne eddam eddam léegi mu jeex su gisee mbaax ñetti yoon eddi bi dafay jeex balaa loolu nga dem su gisee benn ñaareel bi nga dem ki ba nga dem nga dem jëli ko bu boobaa soo ko indee da ngeen di wax ba juboo rek nga indi ko nga dellu siwaat kenn du ko takkaat nag kenn du ko takkaat ndax idde gi soo déggee takkaat rek dafa fekk danga bàyyi ba idde bi épuisé su loolu amule da ngeen di waxtaan ba juboo rek nga delloo ko loolu la ñuy wax raji nga delloo ko soo ko delloo rek après da ngay wax nag un un l'islam mu ngi lay konteel benn passé dese nga ñaar nag soo juumee ba fase wala ba dof dof loo ba fase nga ne ah wax dëgg yàlla bëgg naa sama jabar wala say moroom ñëw dal sa kaw walla say nijaay walla say mag dal sa kaw waro woon def loolu te ah, du dem tey du dem ëllëg du génn kër gi xam léegi dafay am ñu mën mëne la ba ne waaw ko kon bàyyi na loo yaakaar dégg nga moo tax passé balaa nga koy wax daay bay bàyyi ba mu ñor bàyyi ba mu ñor ah même su génnul kër ga tant que wax nga ko fasenaal même su génnul kër ga bu ñu arrangé sax génnul ga l'islam nee na un nga ñaar nag soo dox dof la ba àgg ci ñett yi ñàkk nga jabar yàlla bu bu ne bu mu nekk jabar joo xam ne mooy sa hmm? kon ñu dem kon moo tax wa iza talaqtumu nisaa su ngeen fase jigéen fa balax na ajlahunna ñu dem ba seen idda jege jeex fa am amsikuhunna na ngeen dem kat mooy leen ci ñoom ngeen dem jëli leen ngeen delloo leen bil maaruf ci njëkk min xayri idraarin dëng ngeen ngeen bañ leen lor xam nga lan mooy lor bi nga fase ndaw si mu dem nekk sen kër nekk sen kër ba nga ne mu ngi dugg ci ñaareel ñett ñetteel póotam nga daw jëm jëli ko nekk ak moom tuuti wat ko est-ce que comprendre nga mu demaat maanaam muy souffrir léegi idd yi yow da nga bëgg sonal ci idd yi dutu am jëkkër ci diggante parce que dem nga jëliwaat ko fasewaat nga ko day dem jàppaat idd maanaam da nga koy vailler violon rek diko sonal sariyu nangu lool dégg aw sarrixuhunna walla ngeen bàyyi leen rekk bi maaruufi ci njëkk utrukuhunna xata tantaqi tanqadi iddatuhunna wala tumsikuhunna bu leen jàppee bi rajaat ci delloo ga di ko delloo rek diraaran ngir lor leen li taatadu ngir ngir jalgate alayhin ci ñoom bil iljaai ilal fidaat ngir sonal ko pour mu mu mu jotu pour jox la alal pour simmeeku ci sëy bi loolu moo tax nga def ko yàlla ne bu leen ko def yàlla ne waman yafal zalik képp koo xam ne danga ko def ngir sonal ndaw si faqad zalam nafsahu kooku de tooñ na boppam man la ko digaale du ndaw si hmm? kon ku diggaaleek yàlla diggaale nga ku ku ku màgg wala tattaxisu bu leen jàpp aayatillaahi aaya yàlla yi huzaan ngeen di ko sabote yàlla nii nii laa ko tërale ngeen def li leen neex yàlla ne bu leen ko def loolu wadkuru na ngeen fàttaliku nicmatallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen bil islaami ci lislaam ni ngeen nekkee woon avant lislaam lu leen neex ngeen def jigéen ki ci boppam amul woon àq amul woon solo ci lislaam yéen lu ngeen neex ngeen def def leen yàlla neen na ngeen fàttali ko xéewal yàlla bi mu ñëwee reglemente lépp teg ko ci yoon loolu xéewal la ci jigéen ñi waaye xéewal la ci góor ñi wama ak lépp li nga xam ne anzala wàcce na ko moom yàlla aleykum ci yéen minal kitaabi ci alquran na ngeen ko wattu wal xikmati ak atte yi nekk ci yaa yaidukum yàlla mu ngi leen di waar bi ci li mu leen di wax wattaqullaha na ngeen ragal yàlla wa alamu ngeen xam anna allah yàlla alimun aji xam la bi kulli shay'in ci lépp lu mu munti doon hmm? Hmm. Hmm. ñaar maanaam ñu nekk nekk gan ban nekk waaw ah, génn mooy mooy génn li li gars de diw ak diw ñooy génn fu ñu jëm fu ñu jëm ah? mooy génn ak diw maanaam suñu génne fu jëm ah, ah? <laughs> na waar de ah diw ak diw ñooy génn suñ génne xam fu ñu jëm ba tey léegi nga ne dafa doon ànd ànd ak euh, ku mu doon ki muy génnal waaw ñaar ñooy génn waaw léegi nag ku jigéen ki am jëkkër mu am ku ko bëgg ñu maye ko waaw hmm. waaw déedéet du valable kenn du wax jabaru jàmbur soo tasee danaa la takk su ko lislaam xamee doo ko takk kenn du wax nit soo génnee ci idda yaa ngi iddawu waaye su idda wi jeexee danaa la takk soo ko defee doo ko takk soo ko waxee sa sa sa borom kër dafa génn àddina yaa ngi muuru soo génnee danaa la takk lislaam du ko nangu du ko takk waaw du du doxaan jaboru jàmbur la ci ci ci nekk bu nekk ci séyam ku nekk ci séyam noo koy waxee su soo soo kon yaa yàq ci séy bi pour takk waaw loolu moo tax lislaam du ko nangu lislaam heure bu ko lislaam yégee séy bi du am <coughs> waaw loolu nag nit ñi ñoo koy def ñaar ñooñ doon génn defe naa ñoom ñoo ñoo bëggante nañ def yëfu kilifa suñu yégée ni ñu ngi génn kilifa ku góor ki ak kilifa ku jigéen ki nañ ci wax hé soo bëggee ndaw si ñëwal yónneel sa kilifa ma may la ndaw si su fekkee ne kii sa waa ji bëgg nga ko danaa la ko may ngeen may la ngeen may ñaar ñu bëggante su ngeen jëlee ndaw si nag ngeen may ko ku mu bëggul liena yéen a responsabilité bi kilifa yi la ben yon charia nanguwul nga may nit ku mu buggul mariage forcé de tubaab bi dañ koy wax ñi indi ay loi way l'islam ko njëkk bañ han ah? may nit ku mu bëggul déedéet <coughs> mhm. wa nisa su ngeen fasé jigen fa balax na ajlahunna ñu dem ba seen idd jeex falaa taaduluhunna bu leen leen gàllankoor yéen yéen kilifa yi an yan kiix na azwaajahun déedéet masalan <clears throat> sa doom bu jigéen walla sa rakk bu jigéen jote na ak jëkkëram ba jëkkër ji fase ko bi bi ko jëkkër ji fase bi nga fa demee xëy na jëkkër ji ni mu comporté wu ak yow war na la reewande wala saaga na wala def na jëf joo xam ne yow mer nga nga indi sa rakk wala indi sa doom wala indi sa jarbaat mu ñibbi si kër mu dem ba eddam jeex jëkkër ji ñëw ne da koy jëlaat ndaw si moom itam mu bëgg yàlla ne falaata aduluhun bu leen leen gàllankoor ndax da ngeen keroog li waa ji waxoon dafa meroon wala dafa defoon ni moo tax kii du mu ko delloo te ñoom ñaar buggante nañ yàlla leen déedéet bu leen leen gàllankoor na ngeen ko bàyyi mu delloo ci jëkkëram waaw hmm? ah. keroog bi ma demee foofu ah, bi may wax ak moom def ma wiccix loxo moo tax kii duma ko ko jox dootul dootul dootul moom ak ah lu ci sa yoon ñoo te ñoom ñaar bëggante nañu ñoom ñaar bëggante nañ bàyyi ko mu dellu ci xam nga soo ko bàyyiwul nu muy def te bëggante nañu li nga wax léegi dañu génn dañu génn bu boo bu booba xanaa xanaa delloo woon ko ñu ñu koy def ci ci lu dagan moo gën ñu ñu nga bañ leen dellu ñu dem ñuy génn ah idda bi su jeexee te mu mun ko takkaat ñëw ne dama ko bëgg ndaw si ne man sama jëkkër rek la bëgg jox leen ko deng su fekkee ne idda ji jeexul itam jëkkër ji ñëw ñu ne dama bëgg dal dell delloo sama jabar te ndaw si bëgg waaw lu ci sa yoon doo ko ko dellu su neexee aji dee ji hmm? te mu neex ki deele yow mi jaale si lu ci sa yoon déggoo wax ji de <laughs> conséquences yi moo koy sibir du yow delloo ko ko bu ko gàllankoor mukk delloo ko mun na am jëkkër ji li tax mu jël si ko changé na walla ndaw si li tax mu nangoo dem changé na ñoom ñaar ñu ànd su ëllëgee sax mun na am danañu rusaat defaat lu mel ni parce que fi ñu jaar woo leen rek nga wax wax ak ñoom nga delloo ko jabaram jàmm ne ñooy su ëdd bi jeexul ñu gisante ci suuf faw ku góor ki suy ànd ak moom itam ñu génn noonu nga wax ñu génn su ñu génnee faw ndaw si ku góor ki yéene ni delloo na ko da ko delloo lu mu ci nëbb maak sama jabar juboo nañu delloo naa ko ànd nañu man bi mu koy ànd day yéene delloo na ko su fekkee ne ne sëy fase boo xam ne war na ko delloo mu ne raje yi loolu la ñuy wax raje su fekkee ne passé goo xam ne mootul ñett war na ko delloo suy ànd ak moom foofu mënta dem day yéene ni delloo naa sama jabar ndaw si su ko neexee jël bagage am jaar fa parce que du lu ñu tàkkaat dañu xuloo woon rek juboo nañ waaye du tere nag dañuy compter nag un wala ñuy compter deux fekkee ne foofu la toll Hein? ah gissa gisa li ma wax ñam bëgg nga déglu bu wax fase kenn du ko tiaxané fase soy kaf ba fase sa jabar tabina na soo ci normal ma xam na ci sa conscience ya ko fase tabina na mandé sax ñew dem mandi ba ñew né ko fase na tabina na kenn du ko ah? sa ànd ak sa conscience sàngara si yaa ko dem jël si xaalis xaalis naan ko ñëw déedéet cest à newu ci yooyu de xaanaa su fekkee ne dangaa dof ndof koo xam ne da dangaa feebar feebaru ndof wala danga ame lu ñuy ni gaa yi di daanu nga daanu feebar naturel boo xam ne da la kii nga wax loolu boobu kenn du ko considéré waaye dem màndi ji waaye soo ko fase muy tabbi yow yaa jël sa xaalis dem jënd ji ki jooni walla kenn xaw mu la bu si nu mu tudd sax <laughs> walla jakarta yaa jënd jakarta ñëw sooy fase muy tabbi ah sooy fase muy tabbi de parce que daal kenn du ko caaxaan ah kan gis nga dafa am passé boo xam ne sharia sarixa boo xam ne bu leer fasse naa la dégg demal sa kër du man ak yow yow kay pare naa ci yow ay façon yooyu yëpp loolu lañuy wax ci passé kinaay nikaahu euh, talaaku kinaaye maa dem ko kinaay lu ñu koy wax ci ci ci ci waaw kay su ko defee nag waaw kay kii mooy genre sirno maanaam daal fase naa la nga waroon wax nga ne ah demal toog kii yow kay man pare naa ci yow tey nga waxoon sax fase naa léegi nag kenn du ko wax ne pase la demal seen kër yow kay soo gisee guro yéer te yooyu yëpp balaa muy doon passé il faut nga ñu laaj la yow góor ki loo jublu ci li nga wax est-ce que il faut ñu laaj la loo jublu ci loolu demal toogi seen kër ñu ne lan nga ci jublu nga ne man kat ki def ma sonal ma de bëggoon mu dem foofu toog foofu ba ba ba ma giif ah loolu la mu toog fa ba nga gif wala mu ñëw di nga ñëw voilà du fase soo ne nag wax jooju li muy wund mooy dem may naa ko baatam mu jeex na yow yaa ko confirmé mais ala kulli xaali am na yoo xam ne li ñuy wax kinaaya paseb kinaaya soo ko waxee dañ lay déglu ci loo ci jublu soo gisee tàngal màccal soo gisee yé guro yéyal soo gisee loo yépp du passé dañ lay la loo ci jublu duñ la ci jëkk de duñ la ci jiitu de waxal la li li nga bëgg a déedéet dinañ la laa loo ci jublu lan nga ci jublu nga ne lii laa ci jublu waa kay baax baax kon baax ñu soogu konte dégg nga kay euh, kon ku ñëw jël si jabaram na ngeen ko delloo isa taraadaw ndéem gërëm nañu ñoom ñaar d'accord nañu ñoom ñaar ku góor ki ak ku jigéen ki d'accord nañu baynahum seen diggante bil maaruf ci njëkk zaalika loolu nag yoo azu mu ngi waare bihi ci loolu man ka man ki nga xam ne kaa nekk na minkum ci yéen yuminu billahi di gëm yàlla wal yawmil axir ak bés pénc zaalikum loolee bayi se galankor len azka mo gën sel sell lakum ñee len wa atharu mo gën tey wallahu wallaahu yàlla yaalamu aji xam la maa fi maslahati ma fihi lmaslahati loo xam ne seen yiw la seen njëkk la wa antum yen la ta'lamun xamuleen kon ñu tek fofu suñu baram ba ëllëg inshallah allah salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu